ndax da ce particulièrement l'agitateur de Yewwi ki mel ni ñebbi ci cin xamul fu muy toog ndax moom xam na li koy xaar et li ci kanam raw li bët xam na li koy xaar moo tax fépp fu mu dégg ni sax mën nañ ko faa rey dina ko dem ndax lii ñëw ci moom xam na ko te loolu gor su nekk ragal no ko te am na dund boo xam ne deewut doon ñun xam nañ li muy dund xam nañ il ne vit pas au fond de lui-même dundul moom xam na loolu on compatit en tant que góor sax ñun on compatit xam nañu dundul il a très mal il souffre waaye na ci boole yar ak teggin xam ni mënta yëngal réew mi il est trop petit pour ça trop on compatit ndax ponkal moo xamante ni danga ngaa yor ñaari jeeg ñaari ñëpp dem nañ mënatoo suite côté tëj na mënatoo vider loolu nag ngeen baal ma mais dañ koy masawu on compatit ñu ay góor lañ moo tax mu agité noonu mel ni ko dof mais on compatit réew mi daal li ma bëgg a wax encore une fois di ko baamtu mooy képp koo xam ne ak koo mën a doon yëngal réew mooy sa yitte ci loolu ngay jóg teg nag sa bakkan te lu mu jar di dinañ ko def duñ ci teg sunu bakkan yi de ñun. suñu bakkan yi di nga ko teg waaye teg nañ sa bakkan yow mi bëgg a yëngal réew mi te fu mu yem nag neex te wax naa ni ngir jàmmi sénégalais yi ngir jàmmi sénégalais yi ngir sécurité sénégalais yi dafa am loo xamante ni buñ fa àggee tëgg ndënd ak sembiñ la war a doon neex benn naqari benn mbir mi fee ñu ñaan jàmm